Covid 19 di coronavirus mbas mi la léegi wër na Sénégal gi képp fépp. foo mën ci dem ci Sénégal ci ay raison moom mën nga fa fekk lii nga xamante ni mooy coronavirus ginnaaw bi nga xamante ni mën nañu sukkandiku ci xibaar yi nga xamee moom le ministère de la santé et de l'action sociale joxe tey ci suba ne raison bu ma am na moom i tamit ka am bu njëkk ci coronavirus ginnaaw bi nga xamante ni raison de Kaffrine moom it enregistré na ka am bërki Dembo Ndiaye fële ca marché bu Koungheul sax loolu lañ ko xamle ne benn commerçant moom moo fa amoon covid 19 ci coronavirus pendant ce temps nag gaa yaa ngi xalaat assouplissement maanaam euh, gën a wàññi li nga xamante ni moom mooy restriction yi ñu defoon euh, ginnaaw bi nga xamante ni nag ay borom yi xam-xam yu seen xam-xam màcc jëm ci wér-gu-yaram waxoon nañu nañu bàyyi nit ñi ñu duglante dem ba nga xamante ni dinañu mën a xeex ak sax li nga xamante ni mooy mbas moomu lee ndax dinañu développé ay anticorps ñu bëri nag euh, ci jamono jooje weddi woon bu baax ki nga xamante ni moom moo génnoon def boobu sorti ne loolu moom waaye fi mu toll nii dafa mel ni ñu bëri ñu ngi koy bëgg a jox dëgg ginnaaw bi nga xamante ni raison bu Kaffrine jotoon na am kaawam ay analyste yu bëri ngi doon xaarit ci fan yu néew rek ñu annoncé beneen cas bi nga xamante ni moom mooy am fële ca Matam ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi doon wax ne ay nit yu bëri dinañu jógee fi nga xamante ni mooy Ndakaar ay gox yu fasantikoo ci biir réew mi dem tukki ci yeneen i gox ndax dañoo war a def fi nga xamante ni mooy reprendre les classes ginnaaw bi nga xamante ni dañu war a reprendre ak njàng mi ci le 2 juin bile boobu nag ñu bëri ñu ngi doon xaarandi feebar bi moom mën naa warandiku mu indi woon sax coow lu rëy ci bi nga xamante ni émission jàkkaarloo amoon na fële ca TFM ki nga xamante ni moom mooy directeur bu Soleil Yakham Mbaye doon défendre lu nga xamante ni amaana sax mu ngi doon joxe ay chiffres waaye tewul ko woon benn yoon ci xam-xam ndonte sax ñeneen ñi nga xamante ni ñu fa toogoon di ko waatal ni mënoo waat nga xamante ñu jëlee muy ci gox ko goxaan yi bu ñu leen testé woon du ci am ñi nga xamante ni dañoo positif te mu weddi woon ko ba lank tëdd ci suuf waxoon ne nag gouvernement bi jël na ay matuwaay mat yi nga xamante ni dinañu fexe ba xeex coronavirus ba ñoom duñ ko yóbbuwaale fenn ba di ko mën a euh, façon yu mel noonu tax askan wi ñu bëree bëree bëri commencé nag di weddi li nga xamante ni moom coronavirus ak ni nga xamante ni moom lañ koy gérer Sénégal naam bu dee feebar bi am a wérul bi nga xamante ni moom la ci nguur gi di def tax sax ba léegi ñu bëre bëre bëri waaye mat matuwaay yi nga xamante ni moom lañ doon jël day matte wala du matte li ci gën a wóor daal mooy bu ko jox sa loxo